man sama wareef ci équipe nationale def naa ko génne naa sarax yi ma waroon a génne def naa lépp ñaan yàlla mu may ñu ndam ñu am coupe bi nag. ginnaaw bi ñu toogee saytu def jàngat kilifa gi Alioune dañuy gisul kenn ku mën a remplacer Sadio Mané ku dul sa jëmm ji toog. wala maa yëkkati benn kàddu di ko ci wax dama am sama xarit Fall latéral. man village yi laa doon toj. léegi nag foofu ba ma fay toj. da nga don deg gaay ci kaw tribune bi bal ba xam na palaasam day dem dégg bal ba xam na rek may may may may may may ñaajal di wëy équipe nationale yego li ci dox c'est bien euh, yàlla dafa dogal man ma wara dem Qatar ren ci coupe du monde bi man seen dom asmané gën ma xam ci as mondial as mondial ci defaale ballon bu mag bal waaye yéen kon Qatar yéen a ci kaw ci kaw fan ci kaw tribune yi moo yow yang ngi fi man may latéral bi as moy samp comme fi Sadio manat yow ki lu ko dal ñun dañoo cité xam ne ñun ñoy joueurs yu magi ku ñu baasul doo football luma ma mënta toj ci terrain man dama ko gisut ci terrain terrain def naa ci lu ne. te man défense lu mu dëgër dëgër damay pénétrer damay dugg mënoo maa téye. waaw éviter boo defee boo dawee ba pare ba sonn. di naan ndox ah. li nga daw ça ba éviter ko man liggéeyoo ma noonu. d' accord ah. bu ne ku fa am jabar chaque weer amel naa ko cinquante mille Sadio Mané da koy def dëkkam. Ah, sama dëkk laa am bindal ma lii. comme nel bi docteur la. Mhm. garaawul léegi nag nel bi dañ ne ñëpp nañ def nel. a mhm. bëgg nga def fépp nel. <laughs> plaisir bo xamanteni ni non tubaab mo soxor awa tuba mo sari jàkkaarloog Sadio Mané ñu def contact boy bi bës ko bësaat ko mu pad Sadio Mané xëc ci bi dóor ni oom bi oomu bi am problème mu génn jaasi jaasi ci téré kéro ñaari carton rouge de coach le arbitre bi génne joxandoo ko ñaar mané ko dolé ci yenen ñaar moy quatre carton bu ñu sonnee remplaçant am na ñun dong fubaluñu Aliou Cissé bu ñu sonnee mu génn ñu dugal ñeneen. xam na ne li dem ah, Qatar naa dem Qatar. dugal nga tànk war de waaye man ak yow ba Qatar.